di nuyu tamit ñi waral bis bi tey muy président Galal Koumba ak secrétaire général sëñ Basiru Jaxate ah sant nag bu baax ci lii ñu jël def tey nga xam ni suñu xalifa général daf koo soññee yàgg koo soññee di takk maskam jamono ji mu toll bu ne kon loolu rek doy na soññee kon nag ku wàññi ko am taxawaay jënd maska yi doy sëkk ak ay sel di ko séddale ci Touba ñun ameel nañ leen sant cant gi nag mboolem commerçant bu ne ci dëkk bi wax na léegi sant na ci kontaan na ci xam nga commerçant xëy na jotoom bëriwul moo tax tamit ñu sàkk seen délégué bëkki démbit la ma ko fàllu wax ni ma bëgg nañ nga teew si fa mu teewal commerçant yi loolu nag moo gisoon suñuy tànk axe bi assis def nii rafetlu ko rek mooy moo tax ma teew ci ndax yaakaar naa bu ñëpp defoon ni ñoom rek yëf yi dana yomb ndax nun waa Touba loolu la manti wax tam bu ñu xëyee su ñu def seen communiqué bu ministère bi def comité comité communiqué ñun dañuy déglu rek ba xam Touba lan la fi am kon nag ku jóg ngir sa soññe waa Touba ci ñuy takk masque di leen jox ay salsi ñuy raxasoo kon ku def lu mel noonu rek yaakaar naa ñun dañ lay sant di la gërëm ko rek mbas bi gën a wàññiku yaakaar na ni jot na ni bu ñu ko defee dana gën a wàññiku kenn ku ne rek set ci sa kër d'abord def santaane bi tam ni sëñ bi waxee rek boo seetee ba fooy dem rek nga fexe ba takk sa masque comme ni ko ñii defee rek yaakaar naa ko ñëpp defee rek ni mu delloo gannaaw dana gën a dellu gannaaw kon ñu ngi leen di sant ñoom di leen gërëm te xam ne daal def nañ lu ko xam ne kenn defagu ko ba commerçant yi lépp Dakar ak Kaolack ak fépp rek ñu xool waa Touba moom ñun dëkk mun yor dëkk royukaay la spécial lañ yor kon ku gis ñu def lu baax rek ñu ngi lay ñaan nga roy ci ñoom pour pour que bi mi jeex ci dëkk bi réew bi